astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum wa tubu ilayhi tawbata abadin zalimin la yamliku li nafsi darran wala nafan wala mawtan wala xiyatan wala nusuran la xawla wala xuwata illa billahi alali alazim xasbuna allahu wa nihmal wakiilu nihmal mawla wa nihmal nazir barkab sëriñ sàmbay barkab baay sàmbay bokk yi ngi dellu si di leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak yow santam di leen ziar yéen ñëpp di leen ndokkeel ci weeru jàmm bi nga xamante ne moom la ñu dugg muy weeru koor ñaan suñu borom kàttanal nu may nu nu woor ko ni mu ko bëggee te bu koy bu fay ko nga xamante ni noonu la toll. bu loolu jàllee xam naa ci nuyoo am nañu bari ñoo xamante ni lii min nañ ko ndax bisub Serigne Sam Mbaye bi nga xamante ni moom la ñuy def at mu jot te ren ñu defoon ko le 3 mars bi jàll. daa noon baaxoo bu jàllee ñu dellu si toppaat li nga xamante ni moom lañu waroon a waxtu waxuñu ko li ñu waxoon te nañ ko waxee nekkawul noonu luñ ci mën a dabaatal rek ñu dabaatal ko loolu mooy sabab jataay bii tey ren nag ñu ànd ko ak euh, fii ci sama ndeyjoor sëñ Habib Guèye Mouhamed Habib Guèye nga xamante ni moom mooy directeur des études daara ji maanaam njàngale mi daara ji lépp ci loxoom la nekk te ku fa ñëw xam ne ni déggul ñu wax ci daara ji kon loolu lu ñu war a lu ñu war a dabaatal la waxaat ci daara ji sëñ Moustapha moom tamit ràññee ngeen ko ci micro central président d' ñàkkul ni am na moom tamit ay rëcc rëcc yoo xamante ni rëcc na ko te bu sañoon euh, moom tamit mu jubbanti ko sëñ Aliou Diop xidma amoon na yéene teew ci jataay bi waaye ak jotam da ko da ko ko mayut waaw kon moom it bu ñu yeggee ci sant gi rek daañu ko daañu ko sant ci turu daayira bi ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayam ak taxawaay waa ahlu xasida kon daal euh, sëñ Mbàkke ci nuyoo ñu wax loolu bu ñu wóoree ba dellu si leneen niñ ci yokk yokk ci bu soobee la kon euh, sëñ Habib bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi sof suñuy wax ci fi jëwriñ daaneele mooy jitaayu remerciement jitaayub njukkal jitaayub ngërëm waaye jitaayub mottali comme noonu mu ko waxee ci tomb yooyu e, ginnaaw bu njukkalee gërëmee waa kër sëriñ Sam mbay waa kër maam Cheikh Mbaye ci njiital sëriñ Ibra Mbaye dañuy ñëw rek ci li nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane muy benn tomb ba ñaar ndax waxtaan ci daara ji jëwriñ sàkk woon na xasida gi ñu tudde woon bis bi nu ñëw ci tuuti sof ko ci la ci suñu Usmaan ju wax ca bis ba tam am solo trop muy mafaatixal bisri muy lu am solo ndax Euh, ma fàtte al bisri jël naa ci sëriñ Sam Mbaye radiyallahu anhu mu wax ni bu ñu la laajoon salaatu ala nabi bi gën a mag nee na bu la neexee jëlal ma fàtte al bisri indi ko man maa ko dégg am naa ko set loolu nag kon du asaar ñu dem ba am xalaatu jël bis ñu darajaale ko ma fatihal bisri ndax euh, buñ demen ci madmoon bi madmoon bi mooy li mu doxañ ci biir lu tuuti lañ ci xam noonu nii waaye lu tuuti liñ ci xam lu tuuti lañ ci mën a wax pour ñu enregistré ko ca fan ca mën a yem ndax euh, am na ñu ni Sëñ Tuubaa mi ngi ko liggéeyee bi mu sañ ci Tuubaa ah léegi nag euh, am ñu ni mi ngi dajee gën àdduna Sëriñ Fàllu ba Sëriñ Fàllu gane àdduna daaru salaam sëñ tubaa nekk Touba eh, am ñun ni mi ngi ko liggéey ci weeru rajab waaye dajee tudd rajab moom sëñ tubaa waaye tudd ci saabaan tudd ci ramadaan mu ñetti weer yooyu nga xam ni am na ñu ko xam lool bu rajab teroo buñ xëyee jàng benn mafaatal bisri ba rajab jeex bu saabaan ñëwee buñ xëyee jàng ñaari mafaatal bisri ba saabaan jeex ramadaan bii nag bu ñëwee fi toll ñoom dañuy jàng ñetti bisri trois mois yi loolu la ñuy liggéey xasida googu muy xasida koo xam ni ci biir dafa bari eh, asmaal usna lu ko ci répété lool lool tur yi yàlla wax ni na ngeen ma ci ñaanee waaye dafa bari lu mu ci répété turu naa Muhammad lool aleyhi salaatu wa waaye dafa am yeneen madmoon yi ci nekk mooy eh, day ñëw ci wenn bayit eh, mu def ci salaatu ala nabi ba noppi ndekete dafa jël benn asmaal usna wala ñaar wala ñett boole ko ci biir ci adat ci misaal wa salli yaa akramu sarmadan ala man istafayta wahdita faala boo ko xoolee mi ngi jàpp juróom-ñeenti jaamio juróom muy mbirum baatin mu am solo moo xam ni xasida gi boo koy jàng ah, yu bari yu yàlla santaane yaa ngi koy def maanaam salatu ala nabi bi ñaan gim ñaan maxfira ak xubul ak saadatu daarey ni sawaban laa yarim maanaam yàlla defal la ak nangu yàlla defal la njëggal waaye defal la yool bu dul dog mu jël xasida gi indi ci eh, xikma bu am solo mooy eh, sirul xam sa daf cee ñëw secret juróom ndax lan da ko ubbee wesar wesar mooy xasida gu mel ni euh, muqaddimatul xidma loolu mooy wesal wala fawsul mutia xaaj bu njëkk bi xaaju ñaareel bi mu ubbee ko mu mu mu mu ubbee ko nasmu mooy way mooy lu mel ni mu waaye bu gis bu loolu mooy a nasmu benn bu ci nekk juróom la nasu nasur yi juróom la nasmu yi juróom la euh, mu doon lu am solo loo xam ni bi mu ñëwee ci nasru bu njëkk bi bi mu jeexee rek bi muy way rek way yi mi ngi ko tënk ci inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabii maanaam boo wàññee alaf yooyu mook bunt bu njëkk bi ñoo tolloo ci alaf inna allaha mu jël alif yi def ci aw bayit nuun gi bayit laam-laam alsaqer ba ci nabii mu yam foofu daal di indiwaat wesar te bu mu ciy ubbi da koy ubbee daanaka tur yàlla ci liñ ci mën a wax kon mu jël tuur yàlla wu mag ci biir asmaal usnaa nag dëxuñ ko ci biir ñi xam latif xam nañ bu baax a baax baax ni fes na ci boo ko xamee waaye nëbb na ci xañ na ku ko xamul li yépp nag liñ ci jublu mooy daara ji day bëgg daayir bi day bëgg bi mu tànnee xasida googu ba jagleel ko bis bi ngir bëgg ci barke bi ne ci biir xasida gi wàcc ci biir mbooloo mi wàcc ci ñëfa ñëwoon ñëpp wàcc ci kër sëñ Saam ah, bëgg na tamit jullit bi mu am lu mu dolli ko ci xasida gi sëñ Saam kon en tant que bisub sëriñ Saam eh, ñu war a dugg tuuti ci xasida gi mu doon yab yóbbal ñeel ñi nga xam ne jombul ñi ngi seetaan waxtaan bi loolu lañ jublu waaye tey jii lañu jëkk a waxtaane lu ñuy enregistré ci xasida gi liñ ci xam ak su te lañ cay domp di ko ci waxtaane tey jii la yëkk te li ñu ko jëwriñ sant ngir sëriñ Sam moo tax ñu def ko ndax sëñ Tuubaa bind ay bindam ngi ñëw doon dongo bu tuuti bu xeebu ñëw ah, bëgg caa waxtaan loola day mel ni yaa ngi ci xatar yaa ngi ci dansé kon noo ngi koy defee ngir ndigalu jëwriñ rek ngir jeexal daal kon ah la goo xam ni ah, jamono ji nga xam ni lañ ko doon jéem a liggéey nun ñi dañoo dem ba ci ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa muy Sëriñ Saalix sàkk ci moom digal du ko diwaan mu faatal bisri ba banlieue bi ñu bari xam ko ñuy dajee kër ga weer wu ne benn yoon ku ñëw indaale lim yi nga jàngoon ci weer wi waaye bañ ko dooree laa leen bu kenn gis dara ñëw di ko wax ci mbooloo bi loolu nag kon xasilal goo xam ne daal ñu ngi kiy envoyé ñëpp ñu di ko jàng te buñ koy jàng jële naa ci benn bakk néegu sëriñ Bachiru ku jële ci moom mu ni ma suñ Bachiru day def rek bu koy jàng rek toog ci suuf dindi dindi mbaxana mi benn bis mun leen bu ngeen gisee suma koy jàng suñu sama mbaxana xasida gi boo koy jàng alayhi salaam lay jël loxoom teg ci ci sa bopp ak yu bari yoo xam ni nag jëm jërul wax ndax euh, ku sàggan mën na caa dépendaru ba bu defee njom ñëw jàng ko yooyu jërul wax kese yu bari yoo xam ni wér na ku ñuy bëgg a yóbbu kaso am na njànginam nit ku nekk ci xat-xat am na njànginam ci xasida baat yoo xam ne boo ñëwee bay yi da nga koy baamu yooyu yëpp am na ci alakul xaalin kon xasida la gu am solo goo xam ni tudde gi ñu ko tuddee bés bi nekkul rek loo xam ne dafa nekk hasard ngir gàttal kon euh, tomb ñaareel bi mooy daari alxuraan yi nga xam ni euh, dañ ko tuddee complexe Serigne Sam Mbaye li tafisil quran wa ulumu sharciyati wa tarbiyati islamiya mu am daaxiliya am xaarijiya externe ak intern mu doon doorte rek ndax lim bi ngeen gis ci biir Euh, daar ji keroog xañ na bariwul waaye li ko suñu Moustapha mi yoroon micro bi leerale loolu nee na nun noo def suwaa ngir tàmbalee lim bii ndax dafa am yoon wu ñu tracé bëgg jaar ci yoon woowu te duñ ko moy moo tax ñu doxale nii ña xam lañuy jàng di wàcc ñoom it am na yoon wu leen tracé léegi nag woo déggee turu daara ji rek ñëwaat ci turu daaira bi ñaar yooyu déggoon nañu déggoo nañu alakul xaalin ndax li tafisul quran mooy complexe boo xam ni lañ ci jiital mooy mokkal alquran jàng ko njàng mu leer ba mën koo bind wa ulumu sharia njàng-njàngum sharia euh, buñ ne ulum nag am nga ilmu waaye buñ ne ulum muy pluriel bi mooy bàyyiwuñu benn xam-xam ndax sariya day duggaale asriya day duggaale muy njàngum jamono ji langue bu ñuy jàng fii ak xam-xamam dañu koy jàngaale loolu la complexe bi di tegtale waaye ànd ak tarbiya ndax lislaam nanguwul nga def tajasus muy nga séparer tarbiya ak taalim éduquer ak jàngale benn la war a doon boo ko xajalee rek genn wàllu formation ngay am lu nit ko yàgg-yàgg ca njàng ma bu fekkee àndul ak yar genn wàllu formation la am boo boolee ñaar yépp nag ndax ki nga yar te jàngaloo ko daanaka da nga préparer nit ñi rek ku ñu mën a jariñoo koo xam ne ndax day dese lu bare bare bare bare bari ki nga jàngal bu baax te yëroo ko préparer nga benn sanguinaire boo xam ni fit wi war na koo may lu ne ak xam-xam bi alakul xaalim moo tax kon daara ji dañuy boole ñaari yépp muy jàngal ak yar mu am ñu dëkk ci biir ñuy internet ak ñoo xam ne dañuy externe di gërëm bu bi ñu ko tegee ci suñu loxoot jëwrin euh, li mu doon jëwrin comprendre na ko bu baax ndax daara ju mel ni internat moom lu ñuy tudde wàllu administration fokk mu am ca mu xereñe ci lool di ko taxawee nag bu baax a baax baax lu jëm ci wàllu loo xam ni ngir méthode bi ñu war a jàngalee ak muraaxaba ba te war contrôler ki jàngale ci boppam ak ñi muy jàngal ak fu ñu toll ak ndax mi ngi am résultat yooyu yëpp noo koy def bu baax waaye am na ci wàll goo xam ni téye gim mu ko téye waaye nag ginnaaw moom mooy jëwriñ ji damaa jàpp ni li sëñ Moustapha mii yor keneen yor ko ma yor ko leen lu ci nekk war na caa mën a dugal loxoom rawatina bu ci amee ibra bu toll ni bii mu am kon euh, dañuy daal di jeexal rek waaye li ñu xam ne daal moom mooy daare alxuraan ji daal iqra bismi rabbika ndax alif salaam bañ ko fenkee ci xaaru era loolu lañ ko jëkk a wax dañ ko jàngloo kon daara ji bi mu installé woo ba toog moom daayira bi lim njëkk a moom mooy na am daara alxuraan yàlla dimbali leen ci ñu am ko ñuy sàmmoonte ak sëriñ saam bu fekkee danga ko koo duppee dara lii nekk ci wiraasam maanaam ndorul suñu saam da caa bokk daara joo xam ni dañ fay jàngale ak di yar jàngale fa xam-xam yépp wax nañ ko ci biir taalif bi xale yi doon jàng ren jii taalif bi bu beneen yoon dinañ ko ber xaj na faram-fàcceel ko nit ñi ndax wax nañ ci lu bari loo xam ni ci maf umu sëriñ saam ci lañ sukkandikoo ak it laaj xale yi ñoom seen digg te ak sëriñ saam ak lu ñu bëgg ci daara ji xale yu wax ko ñu jël nag euh, bëgg-bëggu xale yooyu ak lenn ci li daara ji war a tekki defal leen ko ay tawalif yoo xam ne dañ koy riime def ko ay poésie yoo xam ni day ànd ak loo xam mën nañ koo jàllale alakul xaalin kon tariyatu illallah boo ko xoolee tariyatu xaadim rasul mooy sëñ tuwaal dafa faye sëñ saam lim ko doon liggéeyal mbooloo mi ca la bokk daar ji ca la bokk ndax li ëpp ci mbooloo mi ñëpp ñëpp wala nga ni quatre-vingts pour cent yëpp ah, ñi ngi jébbul faneen waaye sëñ Saam liggéeyal na sëñ loo xam ni fokk mu tàmbalee fayeku fii fayeku bi nag gis nga day daal di doon lu mel nii kon daar ju mel noonu ah, xajjuwul benn communité xajjuwul benn ya xajjuwul benn julit boo xam ni dafa bëgg doomam jàng xam dañ la bàyyeel la nga gëm waaye sol ci yow xam-xamu diine sol ci yow xam-xam bala tax a jóg ci fuñ ci toll nit ñi dina yëg ni daal daara ji léegi gën naa dool dolli nàngam gën naa dool dolli nàngam ba ñi ko yittewoo man faa indi seen doom li may mujjee rek nag mooy ku ne gis na ni kon yittewoo nañu bu baax a baax a baax gën koo yaatal bu baax ndax yaatal gi mooy tax li ñu war a mën a jël ndax am na ñu bokk ci daara ji bëgg seeni loom ñëw actuellement mënagul a ñëw kon place bi daal bëgg nañu ko yaatal bu baax la ko yaatal nag moom mooy li ko tàmbale woon ba mu ñëw fii rek de ñu volontaire dégg nii sañ saam am na ndono lu toll nii daara ah xaar ma jël sama astuut dugal ca xam naa suñu Moustapha bu jëlee wet googu jëmbul mu teg leen ci yoon woo xam ni képp ku am sa coobare yi bopp bëgg caa def sa astuut Euh, del teg ci yoon woo xam ne bu boobaa nga jël sa coobare bopp nga defal ko sa bopp ndax toujours noo ngi bàyyi xel la suñ saa waxoon ci euh, bi ñuy sos daara ji bañ wër di laajal addiye ci tuuram loola noo koy bàyyi xel bu baax waaye di leen jégle bëgg nag ak lin nar ak lin amagul liin ko may mooy jël suñu tuus def ko ca kon maa ngi guddal di gërëm ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim astaghfirullah al azim alasi seydina muhammadin saahibul kawsar wa sallim alayhi alihi wa sahbihi kal jawhar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñuy topp ci Al TV ñu ngi fii tey ci kër Papa Sall jëwrin ànd ci ak moom ak euh, sëriñ Moudou Habib gay di dellusiwaat rek ci bis bi nga xam ne moom lañu defaloon sëriñ Sàmbay ci le 3 mars te ñu ñaanoon ko yàlla fekke ko ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamina suñu borom defal nañ ko kon ñu santaat ko te ñaanaat ko yàlla ñu fekkewaat déwén ba defaat ko ni ñu ko defee tey nag ni ko jëwrin waxee Euh, bis ba dafa fees dell macha allah ba liñ ci bëgg a def lépp xaju ci nga xam ne bu doon fanaan sax mën naa am du ci xaj loolu nag mooy sababu ñuy dellu siwaat fii bu fi jàllee bi euh, nga xam ne rëccoon nañu dañu waroon ko wax ñu di ko euh, jàllale loolu mooy sabab bi jëwriñ dina ci ñëw ci fànn yu bari moom tamit yu mu war a wax sëñ Modou Abib mi nga xam ne moo yore mbirum daara ji waxtaan na ci Mafaatihul Bichri bi ak daara ji li nga xam ne moom lañ ko dénk mu ci liggéey liggéey bu rafet kon mbir mi day liggéey boo xam ne na ko sëriñ Saam waxe woon ne bu ñuy aj puuj bi néegu ñax bi bu ñuy wet gee moo gën a diis ñëpp jubali fi mu daanu kon ñii dañuy jàpp ci wet gi ñii jàpp ci wet gee ñii jàpp ci wet gee loolu nag mooy suñu ndimbal ginnaaw bi nga xamante ne mooy liggéeyal koo xam ne moom euh, da ngay jéem rek mu mottali la ndax moom liggéeyal na boppam waaw euh, koo xam ne dem na ba muy sëriñ Sàmbay mbay sëñ Abdou Xaadir ne ko sa baay sëriñ Tubaa gërëm na la sëñ Abdou Lahat ne ko toogal ci kaw ndax xàmmewu ma ak alxuraan ak fa ko yàlla boole mu bokk fa di maam Cheikh Mbay di góor yàlla moom ci boppam mu doon góor yàlla kon kooku ku yor liggéeyam daanaka boo góorgóorloo tuuti rek yàlla dimbali la kon dañuy sant yàlla euh, liñ ci yàlla boole ndax dug njàmbaar du lenn am na mbooloo yoo xam nit ñoo xam ne mel nañu ñun ci sëriñ Sam waaye yàlla wërsëg wërsëgalagu leen ñu bokk si man naam ci kanam dinañ ñëw ndax xam naa ne mbooloom mbooloom dina dajaloo ndax li mu liggéey ci jaam ñi ku ne xam na ne la mu liggéey sëriñ Touba gis nga na mu mel leer na nañ yëpp sëriñ Touba bi gëmee wuñ ko fu ñu toll foo dem ci àddina ñu ngi ko fay wutal bis di ko di ko di ko di ko sant di ko ñaanal ah loolu nag bu ñu dellusiwaatee ci bis bi fii. war a wax ci comme maa ngi yi nga xam ne suñu amul Abdou Guèye wax na ko léegi man mi nga xam ne wàllu organisation laa yore ak lu koy taxawu bis bi ak daayira bi ñu dénk ma ko foofu tamit dinaa soññee ci wàllu woowu di jiital suñu bopp si ñun ñi nga xam ne ñoo ñun lay suñu borom def ñor liggéey bi junj naa ko léegi ñu xam lan lañu yor mbir nag dañ naan euh, am ko te xamoo ko mën na laa yàq lu bari waaye ñàkk ko te xam ko dalal jaral lu ne nga wuti ko ndax boo ko amee di nga ko foog ñun nag yàlla baaxee na ñu jox ñu liggéey bii kon nag ñu góorgóorlu ci ñu ngi ci nag waaye dama bëgg ñu gën a góorlu ñun waa daayira bi ak fi waaye mën a nekk nag ci biir réew mi ak bitim réew mu góor ñu gën a takkaat suñu ndigg ndax sëñ Ibrahima mbay mii nga xam ne de mooy xalifa sëriñ Saab mbay yal na ko yàlla dëgëral te kàttanal ko te ñu ñaanal sëriñ maam Cheikh Mbaye suñu borom dolli leeram mag wa juróom waaye sëriñ maam sëriñ Ibrahima bay daf ñoo sas ndax nee na yan bii ma yenu de yéen waa daayira bii laa ko bëgg àndal wax na ko ca mbooloo ma ñun ñëpp dégg ko nee bu leen ko bàyyeeg man jàppal leen ma ci yéen laa ko bëgg a àndal loolu nag weneen sas la muy ñetteel bi benn bu njëkk ba mooy liggéey bi ñu doon liggéey sëriñ Saam ak sëriñ maam Cheikh liggéey bii mu ànd ak ñun di ñu womat di ñu womat bi egg si ñu fii kii ñëw dal di tegaat beneen muy ñett kon war gën a góorgóorlu waaw ñu ngi ci nag euh, ndax li ko indi fii ba ñuy wax daayira pantre ba ñuy wax bis bi ba ñuy wax na dañuy wut daara sëñ Modou Habib booba ña fa nekkoon matul juróom-ñaari nit wala juróom-ñett Moustapha Diong bokk na si njëkk a wax ne war nañoo am daara yàlla euh, barkeel kàddum googu ñi di ci dox di ci dox ba ni ñu amee woon fële ci jaxaay foofa yàlla wedd ko mu mu metti woon ci ñun ndekete ki ñuy liggéeyal moom moom yàlla doo ko tànnal bi ñu amaatee euh, fii nga xam ne mooy Firdawsi tur wi rek dafa am lu mu wone tur wi rek dafa am lu mu wone ba pare cité Firdawsi la ñu ñëw ci ginnaaw tool Ablaye di am fa mu jàkkaarloog jumaa kër gi daara ak jumaa xam nga ne waruñoo mën a tàqali ko te bu ñu amoon fa ñu njëkkoon a nekk amul jumaa ba pare ci mbedd mu ndaw la mu xat la fii ñëw am bayal am lépp nga xam ne kon ki ñuy liggéeyal lii sama wajur Baye Cheikh Diouf na ko suñu boroom yàggal te kàttanal ko waxoon jëwriñ Papa Sall ne ko yéen dañ leen dox leen dañ leen di womat dañoo jàpp seen loxo bu leen ragal dara ne nag li ma neex ci yow mooy da ngaa da neex a dimbali da ngaa am fit loolu la wax Papa Sall mi jëwriñ ñu toog loolu nag mooy suñu foor foor bi nag yàlla tamit dañ ko delloo lépp suñu borom moo ñu ko jox bu jox ñu équipe nag encore ndax ñi ko ñi ko composé daayira bi kenn ku nekk fa nga ne macha allah da ko maîtriser am na ci daayira yoo xam ne dañuy manqué yenn yi mais ñun nag loolu la suñu borom defal kon ñu war ko gën a sant bu baax ah di li may gannaaw fonk daayira boobu ma doon wax nag ah ñi nga xam ne itam euh, dañoo bokk ci liggéey bi te nekk ci groupe whatsapp bi te duñu teew daayira mbooloo lañu ndax liy teew daayira ay quatre-vingts personnes du ko ëpp. te trois cent et quelque bu nekkee ci groupe whatsapp bi kon ñi ci bokk te ñëwuñu ñooñ ñoo ëpp ñuy wax ak yéen nag ci euh, occasion bi ci Alxadimiyyah TV ne leen euh, sori ju jege jege ju sori lépp dañ koy wax waaye fu ñu fi mën a nekk rek nañu fexe ba euh, bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg ni sëriñ bi sëriñ tubaab bëggee ñu ànde ko sëriñ Saam bëggee noonu teg ñu ci yoon woowu ñu fexee def noonu koo xam ne jël nga sa wootee ne damaa bëgg a bokk ci daayira bi ba ñu jox la dugal la ci groupe bi dugal la ci whatsapp bi charte yi daayira bi dox na nga ci dox di jéem a góorgóorlu loo am nga def ko ci li ab sëñ Modou Abib Gaye wax nag dañ ñoo laaj waaye euh, yaatal mbir nag ku ci bëgg a def ko aayut kon am na ci ñeneen ñoo xam ne sax euh, bokkuñ ci daayira bi nekkuñ ci groupe whatsapp bi te dañ may woo di woo jëwrin di ci barkeel te doo leen xam daara jee karo yi ci dem ca daara ja karo ya un million trois cent mat na ko te kii ko def ba tey xaw ma ko woo ma dama ci bëgg a def barkeelu ñuy jokkoo jokkoo ba mu ne jëli ko palaas sàngam mu dem jëli ko def ko fi jëwriñ mii loolu li koy dal bari na ñi koy woot duñu leen xam ñooñu nag ñu ngi liggéeyal yàlla dañu naan dëkk bi yàqu na mais am na ñu bëgg lu baax joo xam ne ñu ngi def lu baax te kenn du xamu leen ndax ñii ma lim jëw di jaar ci jëw di jaar ci man mos bu ñu dajewoon ci mbedd xam kon nag euh, lu baax ñu baax ñu ngi bëgg lu baax ba tey kon ñuy soññee ci daara ja liggéey bu mag a mag a mag la ndax ay dongaa fay nekk si Modou Abib Gaye wax na ko dañ ko war a war nañ ci yokk bâtiment bi war nañu ko yëkkati R plus 2 la commencé nañu nag di yëkkati ci suñu moyen bopp laaj ñu kenn dara nag waaye nag sëñ Muntaxa mi ak sëñ Saaliwu dañ daan def bu ñuy yokk jumaa ji ba ci laat Abdulaat danaan def naa ci lii lu ma waaye jox ma def ko ci foofu la ñu toll ñun laajuñu ndax yàlla mi ñuy dimbali ñu ngi demee ak suñu moyen bopp ba egsi fii ñu egsi waaye nag dinañ ko yaatal ba ñu yéene nit ñi yool bi ba tax na képp koo xam ne bëgg nga ci woote def ko ci ndax ci réseaux sociaux yi rek lañ may wooye ci lañuy ñu wooyee jëwriñ ndax xamuñu ma fa la numéro yi nekk kon ku ci bëgg a def dara wala nga bëgg a bokk ci liggéey bi boo wootee ci 77 764 88 63 di nga jot di nga am information boo wootee ci 77 631 76 66 loo ci def dina si jot te dina di am ay renseignements yi nga bëgg a jot 77 764 88 63 77 631 76 63 66 66 66 numéro suñu Modou Abib Gaye moom tamit euh, dinañ ko dugal ci liggéey bi bu ko defee euh, ndax moom it moom la ñuy jox liggéey bi gën a rëy muy alxuraan moom lañ ko jox waaw mooy saytu njàng bi mooy saytu lépp kooku wàllam la ñu jox ko ko te mi ngi ciy bay waaram loolu daal xam naa ne euh, di sant tamit ñi nga xam ne comme ñoo ñu bokk na ci ku ñuy wax sëriñ Serigne du Ndiaye mi ngi ci New York Amérique di soppab Serigne Sam bu mag te jiite ahlu nooru daare ne mondial ñu def liggéey bu mag ci liggéey boobu man ñii ci ñiy yëngu ci xasida googu euh, bokk naa ci euh, ñu ci am liggéey bu mag bu ñu ciy def moo ko jiite moom it sopp sëriñ Sam bu mag boo xam ne day dugal loxoom fii bu baax comme jëwriñ dina ñëw ci ñi nga xam ne dañ leen war a sant ah dina ko ci boole ak ñeneen ak ñeneen xam naa ci gàttal daal ci tënk ñu euh, def ci loolu ñaan nag yàlla fekkewaat déwén nag jàmm te lépp loo xam ne def nañ ko ci muy bernde muy alxuraan muy xasida muy salaatu ala nabi muy coono ya ñàkk nelaw yi lépp yal na suñu borom nangu defal ñu ko ci suñu téere jëf jotale ko ki ñu koy jotale di ñaanal sëriñ maam Cheikh Mbaye yàlla euh, dolli ko leer di ñaanal sëriñ Ibrahima Mbaye yàlla kàttanal ko di ñaar di nuyu sëriñ basiiru mbay Kéré di ko ziare bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah rabbil alamin kon ci sant ñu tàmbalee sant suñu boroom ci lépp ci li fi jaar ndax li xale yi wax naan bis bi amoon c'est pas évident toll woon nañ foofu ndax am na jamono yoo xamante ni ñëpp dañu taxaw ni ma bis bi nañ ko teg ci suuf ba élection yi jàll waaye nu jàpp ni rek élection yi day dox yoonam ñu nit dañuy dox sunu yoon nañ dem rek suñu borom mën naa dogal duñu daje ñu dem ba mu gën a jege suñu borom ñëw ak na tomb rëy teg nu ko muy sëñ maam Cheikh entrée hôpital xamante ne fukki fan ak juróom yi ñuy waaj yépp mu ngi ci waajtaay moom tamit ngir dem ñu di ko ñaanal suñ borom teertu ko njéggal ak yërmande ah, wax naa ko waxati ko dem bi mu dem mënut a ñàkk waaye moom xam naa ci ñi mën a dégg rek laa koy waxal bàyyi na xel ci dem ci bis bi ba dem na demin woo nga xamante ne bi yàqul bis bi ndax dem na lu mat fukki fan ak nangam bis bi door a ñëw kon dem na ñu denc ko ñaanal ko dellu si mën a def bis bi bu bàyyi woon ba ni bis bi suba la wala gannaaw suba bis bi day yàqu bu bàyyi woon ba bis bi jàll mu door a demit kenn du mën a woote waat naan nañ ko ñëw ñaanal ba tax na kon li may wax ni bàyyi na xel lool ci bis bi loolu mooy li nga xamante ni moo am ndax la fa am ba xew yi xaw xaw a yàqu tuuti fàttaliku guñ ko doon fàttaliku moo ko waral ndax ay waxtaanam yu ñu doon wane ay nataalam yu doon wane kon loolu day wane ni moom dem na waaye ba tey mi ngi ci biir bis bi kon ci loolu ñuy ñaan yiw woon fa am yàlla ba ko ci kenn ëpp ëppale ah, ñu koy sant bu baax nag moom ci taxawaayam di ko ñaanal ndax eh, fa baayam tegoon tànkam rek ba mu ñëwee fa la ko teg ni ko alxuraan di wax rek ku taxaw ci kaw jànj ñëpp seen la waaye boo tabaxee ci kaw jànj ba nag xanaa kon nga gën a fes kon moom li sëñ Saam doon def ba ñëpp gis na ko ba mu ñëwee moom eh, tànqamul ci dara yokk na ko kem kàttanam kon moom loolu moo doon wàllam ci ci bis bi ñuy sant suñu borom nag ci jàppandal gi nga xamante ne def na ko ba mu ba mu jàppandi ñi nga xamante ni ñoom laay toftal ci sant googu mooy waa daayira bi ñi nga xamante ne ñoom la ñoom laa àndal liggéey bi te li ci ëpp di ay ndaw ay borom karaw yu ñuul wax dëgg yàlla seen taxawaay ku fa ñëw gis nga ko ñu ñoo xamante ni kenn du leen soññ ndax lépp loo jàpp ni war nañ koo def nga ni da nga yëkkati sa kàddu wax pour wax nañ ko def rek am nañu ca ne bu ñu xëyee suba ba ngoon jot waa waañ wi ñu ngi fii ci njiital Papa Dieng ak xamuñu lu xaw ca baas ba waaw ndax rek euh, yittewoo liggéey bi nga xamante ni moom lañ leen sedde kon ñooñu tamit wax dëgg yàlla seen taxawaay ñëpp ñëpp ci teg bët ndax ku fa ñëw rek ñam mun fa ñam mun fa lekk rek ñoom ñoo ko togg te gis nga ni ñu ko toggee togg sell set wecc wax dëgg yàlla mel na mu war a mel kon ñoom daal te amul coow amul dara kon daal wax dëgg yàlla ñoom it neexu noo sant xanaa nu bàyyi leen suñ suñu borom rek ñaanal leen seen coono boobu yàlla ba mu neen ñu ci topp Mouhamed Anne li ñuy wax coalition maanaam lépp lu fa nit di naan ci xaltu boisson ak la fa ñëw ci ay ndékki ak yooyu lépp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko fàggu ak ni nga xamante ni yar beeg teg gi ni xamante ni moom lañu ko joxee mbooloo mi wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm nga xam naa cant gi dañ koy biral nii rek ci ñu xam ni bàyyi nañ leen xel waaye bu ñu toogee nun suñu biir ah santante danañ danañ danañ danañ xëñ na danañ jàngatante li nga xamante ni ay rëq-rëq la ci suñu biir lañ koy waxante waaye fi mu toll ni moom wax dëgg daal cant gi daal moom amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ci waa daayira bi ñëpp nag mag ak ndaw rawatina sax nag mag ñi sëñ Moustapha mi sëñ Ousmane sëñ Abib ndax man léeg-léeg eh, doomu adama laa dëgg la damay toll fa nga xamante ni am xel dootu fa nekk ni ngay réagir du réaction ko ànd kum xelam waaye ñoom lépp dañ may comprendre ndax léeg-léeg nga dal ci kilifa gu toll ni Moustapha wala kilifa gu toll ni Ousmane wala sëñ Abib wax ko wax joo xamante ni ji xëy na doomam sax mënoon na laa jàpp yow am nu mu la def waaye ñoom loolu yëpp duñ ci jàpp dara li tax duñ jàpp dara nag mooy fi ñu teg mbir mii moomuma ko duma ci dara waaye nag eh, li nga xamante ni noonu lay doxee ci ci mbir mi mooy bayit bale rek maqafatu dammi wa xubbul matqi li cheikh subhana kullu xobqi ndax loolu sëñ sàmbay mi radiallahu taala an loolu ñu waxoon man nag daam say ni fekk na daam say dafa ñëw di ko jàmbat ni ko man de damay def bu ma branché am na ñoo nga xamante ni ma branché sama fil bi dañu di sànni boole ma dama daggaloo saaga naan xaalis rek ngeen di wut mu ne daal doxe leen ci rek yemale ku leen ci tagg ak ku leen ci ŋàññi kon mbir mi noonu lañ ciy doxee kon ñi nga xamante ni ñu ngi may dégg ñëpp ñu xam ne moom ku ma ci tagg sa sentiment dong nga ma tagge ku ma ci ŋàññit sa sentiment dong nga ma ci ŋàññee kon ñoom ñëpp laa ci yemale waaye ñi ma ko bokkal nag ñoom dama leen di tubal di leen jegul ndax léeg-léeg ma wax ak ñoom waxin woo nga xamante ne bi warta nekk gannaaw nag léegi bi ñu santee waa daayira bi ci seen taxawaay ñu sant nag ñi nga xamante ni ñoo wuy si woon ñooñu nag ñi ma ci jiital mooy daayira alxuraan daayira alxuraan ci jiitu Baye Saliou Dieye ci jiitu sëriñ di Jum ndax luñ fa jàng ci alxuraan ñoo ko jiite te dégg ngeen Ousmane keroog bi muy wax bi muy wax limu kaamil yi lim ci boole lépp boo ko ba dajalee day nekk téeméeri kaamil ak juróom-ñett xam nga ni kon loolu mbooloo moo ko mën ak Pastef kon ñoom kenn kenn amul seen kenn amul seenu pay te bañ ko tàmbalee ba léegi ñoo ko ànd bu loolu jàllee waa ahlu xasida nga xamante ne mooy bisiri xas xasida yi nga xamante ni moom la bàyyi bi doon jàngat léegi jàng nañ ci 408 408 moom lim la xam naa moom ñi nga xamante ni xam nañ chiffre xam na ni 408 moom ci bisiri ab lim la te bisri boobu lañ jàng 408 waaye boo jëlee muxaddimaat jël mooy bu jël jës bu jël jawwat ak xasida yooyu yëpp benn bu ci nekk lim yeen ci jàng neexut neexut biral kon loolu waa lu xasida ñoo ko def axlu xasida nag dañoo am kilifa ki nga xamante ni mooy te waxuma ñooñu mooy ñi nga xamante ni dañuy durus waaye ñi nga xamante ni ñoo fa ñëwoon di yëkkati nga xamante ni képp ko am ku mel ne sëñ Abdoulaat Kundul ku ci mel ne Ilimane Touré ku ci mel ne euh, Ibrahima Gueye ku ci mel ne euh, nu mu tuddati Mourtala Lo ku ci mel ne euh, Abdou Khadir Diagne ñooñu xamante ne kenn rek doo na ci bis ñoom ñëpp rek ñu dajaloo fa ak yéene ànd ak yéene jàng fa jàngum yéene te ñoom seen kilifa ku ne xam na ni sëñ Aliou Diop moom la sëñ am sa jël doxale ko digganteem ak waa Ahlu Xasida kon sëñ Aliou amuñu payam amuñu ngërëmam ndax loolu ñu nga xamante ni ñoo fa waa Ahlu Xasida loolu lañ fa def wax dëgg yàlla muñu ko te sëñ àll yi moom may wax muy bàyyi lu jóob ba ñu tàmbalee bis ba léegi ñaar fukki at ci ren at mu jot nooy ànd te du ñëw ba ñu ni ko dañ lay jox kàddu nga wax ci te mënoon naa wax kàddu mënoon naa am kàddu yu mu yëkkati ci bis bi yoo xamante ni yu am solo lay doon waaye moom comprendre na ni xëy na jamono ji nu am doyul ba tax na moom bu ñu demee ba nekk di séddale kàddu sax lu ci gën a bari dana rocc ko dem ndax man bi ma bi ma koy woo bëgg koo jox kàddu ni ko na ma gërëmal njabootam gi fekk na moom ay yitteem yóbbu na ko ba mu ba mu dem ca kon kooku it mënuñu koo gërëm mënuñu ko sant waaye daal ñu bët ñu ñu fësal daal suñu yéene ah sama dëkkandoo yi xamante ni ñoom laa dëkkal fii ci Aynu Maadi xamante ni ñoom tamit bu bis bi ñëwee lépp luñ jàppoon dañ koy bàyyi ñëw ànd kook ñun mënuma leen a maa ngi leen gërëm di leen sant ah fecc Firdawsi nga xamante ni fa la ñu ko defee lu mat depuis bi Covid bi amee ba léegi lañ fa dem kon day war a nekk ñetti at wala ñeenti at ci ren ñoom tamit bu ñëwee seen kër yëpp la ñuy ubbi bàyyi koog nun fa la ñuy séddalee sunu lépp fa la ñu koy séddalee jumaa ji ñu tijji ko nga xamante ni imaam <coughs> bi nga xamante ni ñëw na dafa ñëw daal ne gannaaw sëñ bi ñëw na moom moom fekk na moo jiite tisbaar mu ne gannaaw sëñ bi ñëw na jumaa jàngoog na jiite tàkkusaan na jiite timis na jiite gee kon kooku moom li mu yoroon lépp joxe na ko kon ñooñ tamit ñi ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla di leen sant ñi nga xamante ni tamit ñoo ci jàpp ci bis bi am na ñoo xamante ni bëgg ñu ñu tudd leen am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon du leen tudd waaye am na ñoo xamante ni tamit seen jëf ñoo leen wane ndax ki nga xamante ni moo jël aw nag yebal ko ci oto ba indi ko kooku moom boo ko tuddee tudd na boppam tuddul tudd na boppam kon kooku wax ni muy aja muy moom la ñuy wax ajaa national kooku gërëm ko wàññiwul dara ndax jëfam la moom moo def noonu moo ko fësal kon nag dañ koy gërëm di ko sant donte moom dañ koo yónni woon rek mu am lu muy indi ndax baas bee ñu def kooku gis xam ni baas bi 1 million 500 mille lañ ko baase te am na nag ñoo xamante ni ñoo ci dugal seen loxo duñ leen tudd ndax bëgguñ ñu tudd leen waaye bu du nun ñëg mun dun nun dong duñ ko mën kon daal wax dëgg yàlla ah, dañuy doon jéem rek ndax eh, li nga xamante ni lii nii keroog laa ko waroon wax fekk ñëpp fekke ko dégg ko waaye li amoon keroog moo tax mënuma woon a wax loolu ndax eh, baas bi jaxasoo woon na ndax ay image sëñ maam Seex yu ñu woon ay kàddu ñu doon fàttali comportement ba nga xamante ni amoon na ko ci mbooloo mi ba tax na daanaka ñu bare bari demoon nañ te bu ñu compté woon ci noonu mën na am bis bi yàqu suñu borom dimbali ñu nag ñu taxaw taxawaayu jéem a dellu si mbooloo mi rek ba ñu def lii ba mu yegg bu ko defee nag ñiy jooy ci xol jooy ci xol ñi nga xamante ne bu ñu wéetee jooy di wéet du jooy ndax loolu yëpp mënul ñàkk ndax suñu boroom moo ñëw dogalam mu metti lool nag waaw newuñu kii waaye nag metti na ñu di ko jéem a muñ ba nga xamante ne li nga xamante ne moom lañ doon taxawal mu jàll ñu delluwaat ci rek yëfi yëfi yëfi doomu aadama sëñ Mbàkke eh, jàpp naa ne foofu laa mën a yem ci góorgóorlu ci sant ak ngërëm xam naa ñi nga xamante ne mooy jàngkat yi nga xamante ne ñoo yéene woon a ñëw jàng te mënuñoo jàng ak ñi nga xamante ne ñëw nañ ba egsi te mënuñoo jàng tamit ah ñoo ngi leen di jégalu te di leen gërëm di leen sant ñi nga xamante ne amoon nañu yéene ñëw te suñu borom dogalu ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñi nga xamante ni gannaaw gi leen ko dégg di jàpp ni ñaareelu dimanche bi la woon ndax li tax def ko dimanche bu njëkk bi mooy élection yi dañ doon bañ rek dem ci ci ci astafurlah lazim mooy koor gi bu ñu ko defee ci ñaareelu dimanche bi day jege koor gi ba mu ba mu mën naa sax mu dugg ci koor gi loolu tax ñu def ko dimanche bi njëkk kon daal ñoo ngi ñoo ngi jégalu ñi nga xamante ni sax moom xëy na bu ñu sañoon ñun ñoom bu ñu sañoon nun duñu am duñu am lu mel nii sax ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax fekkat moom ku fa ñëw bëgg nga par force nga bëgg lu baax bëgg nga bëggoo lu baax tamit bëgg nga ndax la fa nekk moom suñu borom moo toll noonu te suñu borom bi kese moo fa nekkoon kon daal noo ngi tub te jéglu yi li nga xamante ni mooy alxadimia bi nga xamante ne bi moom lañ jàkkaar lool sëñ Mbàkke bañ ko tàmbalee ba léegi ren sax xawoon nañoo am tuuti tuuti tuuti tuuti ngaayo ngaayo bu ndaw ndax ñàkk jotam te man booba bis bi man moom ku ma ni moom aw ma jotu ñëw ci rek damay daal di mer waaye moom wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci taxawaayam mat na sëkk waaw ah, Bichri TV tamit ñoo ngi koy gërëm baax di ko sant ci te itam bu ñu waxee Bichri eh, sëñ Modou Ndiaye mi nga xamante ni moo tax ñu ñëw fi moom it amuñu gërëm amuñu santam xam naa def ko gërëm ko taxul mu di ko def waaye ñoo ngi koy gërëm di ko sant daam Dieng Leeral TV moom tamit dafa jël initiative indi Leeral mu di ko def en direct te avant loolu daf ma laajoon publicité yëpp mu jox ko ko mu di ko def te daam bi nga xamante ni maam sëñ maam Cheikh wàcc na ñoom dañoo arrêté seen programme yëpp defal ko édition spéciale. kon kooku xam naa bu ma déggee du kontaan ndax bëggul ku ko wax waaye nag ah, ku def ngir yàlla ñi nga defal ngir yàlla ñoo lay sant ngir yàlla du defuñu ko ngir biral dara waaye nag dafa ku yeewee cant rek dañ lay sant ndax ku santul doomu aadama kat doo sant suñ borom kon ñi ngi ñi ngi gërëm ñëpp mais ni fàtte nañ leen tamit nañ xam ni doomu aadama moo baaxoo matal matadi rek waaye ñëpp maa ngi du maa ngi wax loolu parce que sama collègue de service yi ñi nga xamante ni ñoom laay liggéeyandool ñoom tamit wax dëgg yàlla amu seen gërëm di leen sant sama mbokki bopp yi tamit dimbale lañ ma dimbal loo xamante ni xëñ na am na taxawaay bu ma taxaw ci bis bi buñ ma seetaanoon xëñ na la ma ca mën dama ko ci mën ak tamit mbokki ñeneen ñi nga xamante ni ñoom laa ko àndal kon daal kàddu yi daal moo doon kàddu yu sant nit ki nag da mën a matale ndax matut soxna ab sa moom aw ma aw ma aw ma aw ma aw ma payam ndax moom ba muy tàmbali di ñëw ci bis bii di nu toggal ay bagaasam faas la ko daan yebe ci Njaga Njaay bu ñëwee boobu fii boo taxaw yaa ngi seen station bi buñ toggee ba pare bu ñu nekkee fee ci cérémonie ba fee lay taxaw ñu ñaanal ko mu dem kon xam nga kooku eh, te boobu ba léegi mi ngi fi te yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu dëgër ci ma nga ca ma nga ca màkk fi mu toll nii di umra yàlla na yàlla suñu borom nangu umraam dollil ko jàmm mook doomam sëñ Moustapha Mboup moom tamit jàmbaar la lool ci ci taxawaay bi wax dëgg yàlla daal moom xam naa ni moom ku déggul it xamal jàppale rek mm, euh, doomu aadama baaxoo